docteur Ndeye Fatou Ngom lay lay lay lay rejoindre moom nag euh, mooy responsable euh, euh, prévention transmission mère enfant du VIH au Sénégal parce que boobu ba tey kuréel la ñu nas ak borom xam yi pour ñu xeex ko ça fera près de deux ans docteur ñu ne dañu ko bëgg a éliminer fii ci Sénégal parce que nekkatul yoon jigéen wérul Euh, am doomi jàngoro ji di ko wàllu doomam te boobu ba tey yéen a ngi ci xeex di ci def ay jéego yu am solo alors depuis deux ans est-ce que combat bi mu ngi tegu ci yoon merci Pape Cheikh maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu ñi nga bokk ak plateau bi yeewu leen di nuyu waa Sénégal ak diaspora bi yëpp. am na mbégte pour ñëw waxtaan ak yow programme bi nga xam ne ni comme ni nga ko junjee. Mhm. mooy naka la ñuy def. Mhm. pour euh, jigéen bu wan lor. ànd ak doomu jàngoro bi ban ko wàllu doomam. Euh, comme ni nga ko waxee. Euh, depuis deux ans Sénégal dafa inscrire pour éliminer ko éliminer maanaam éliminer. Euh, transmission mère enfant du VIH. Mhm. parce que gisatuñ ko Europe gisatuñ ko Amérique donc jaaduwul. Mhm. jaaduwul fii ci Afrique. Mhm. parce que xam-xam baa ngi fi comme ni nga ko waxee. mutuwaay yi aussi ñu ngi fi. xar euh, nit ñi xarañ euh, kii dàggan nañ leen. ci loolu. donc depuis 2011 la ñu lancé processus bi. et que Sénégal ci kaw loolu am nañu plan d'élimination nationale. Ah, tey jii tey jii doguma la ñun duñu ay boroom xam-xam kon possible na euh, doomi jàngoro bi jigéen yor ko ba noppi ëmb te du ko wàllu doomam ba mucc absolument c'est possible ah. loolu lu mën a nekk la comme ni ko bàjjan gox yi di waxee loolu lu mën a nekk la mën a nekk la parce que euh, lu ñu gis mooy su fekkee ne defuñu dara dara dara mhm. jigéen bu ëmb mhm. euh, am doomu jàngoro bi mhm. mën na ko wàll si biir ëmb bi ah. boobu surtout dernier trimestre grossesse bi ak buy imbi buy buy wasin ak buy namp nàmpal doomam bu fekkee ne doomam da koy jox wen mais garab yi mhm. ARV yi depuis ñu wasaare ko mhm. depuis 2005 au Sénégal mhm. ARV yi dina def ba euh, transmission bi taux de transmission bi mënoon ko wàññi ba mu inférieur à moins de 2 pour cent. très bien yaakaar naa ne loolu. Ah. Euh, ñëpp souscrire nañ ci. Mm-hmm. communauté internationale s'est souscrit dans ces dynamiques. Mm-hmm. Sénégal aussi euh, le gouvernement s'est engagé et les plus autorités mm-hmm. euh, de ce pays se sont engagées. pour ñu éliminer vraiment transmission mère enfant bi. donc am nañu document bi. et que ñaari at bu ñu defee bilan bu ndaw. lu ñu gis mooy depuis ñu def. def euh, document national bi ñu lancé ko officiellement le 1er décembre 2012. Mhm. et dañu waxoon ne 14 régions de Sénégal am. Mhm. région bu ci nekk. Mhm. war nañu def euh, am nañ seen micro plan d' élimination. maanaam ñun niveau suñu niveau opérationnel. ci euh, pat bi mooy district sanitaire yi. et que en l'instant T. 12 régions. am nañu déjà leur microplan donc ah. en termes de couverture pour district yi ñu ngi à près à 75 pour cent de couverture d'accord kon kay suñu xel mën na dal ci loolu Sénégal fan la ci tollu bon fi ñu ci toll def nañu ay jéego yu mag mhm. bi ci pàcc bi ci njëkk bi mooy test bi mhm, mhm. parce que mënuñu tànk testé woo doo xam ndax yore nga ko wala yore woo ko et que jigéen ñi surtout jigéen ñi warul yi loolu ñoom ñu ngi dem d'accord mais euh, des na góor yi la ñuy la ñuy la ñuy xaar xaarandi pour ñu def seen test bi. d'accord parce que enquête yu ñu def wane na ne. Mhm. que boo jëlee maanaam euh, cent sénégalais. Mhm. vingt ñi war a def seen test yi. defuñu ko xamuñu seen test sérologique dañu koy dañu koy defoon sondage bu ndaw ci biir plateau bi yaakaar mhm. naa ne jigéen ñi dinañ wax ne def nañu ko. mais góor yi. Euh, est-ce def ngeen ko après am na tamit euh, euh, loolu ñun ñëpp la ah ñun ñuy génn teleek ñun ñëpp on est pareil euh, ñun ñëpp ay doomi aadama lañu yax ak yàpp ak deret rek nekk ci suñu yaram donc <laughs> ñun ñëpp yam on a tous peur dem defi test bi et pourtant dafa primordial mm-hmm. ça a beaucoup d'importance muy góor muy jigéen mm-hmm. muy jigéen wér ak jigéen wérul ñëpp a ko war a dem defi ah parce que xam rek dafa baax sax ah dañ la daan xaw a metti mais léegi jam bu ndaw la jam fii comme ah. donc facilité nañu test bi. et que poste de santé yi am nun ka. dañu koy def voilà am nun ka boo leen mm-hmm. fa demee. Mm-hmm. ñu defal leen ko. par exemple ñu dëkk dans les coins reculés. Mm-hmm. poste de santé yi foofu. test yi c'est disponible. d'accord d'accord fuñ ci toll toujours. par rapport ak test bi bu loolu bu loolu weesoo. Euh, ARV yi ñu ngi donc li ñu seetlu mooy. par rapport ak jigéen ñi nga xam ne dañu wandaloon ànd ak doomu jàngoro bi def nañ ay jéego certes mais pour les euh, lu ñuy wax mise sous ARV. Mhm. des na parce que en 2014. ñu ngi mhm. à peu près à 58 pour cent des femmes ñi nga mhm. xam ne nii. ñoom ñooy jël ARV yi et que ñun dañu xaar ci 90 pour cent donc am na benn gap bi nga xam ne ni war nañ ko combler et que yaakaar naa ne nit ñi dañ ci def si d'accord njëriñam lu muy doon ci diggante euh, wér yaramu jigéen bi ak euh, doomam am na njëriñ bu bëri parce que jigéen bu wan na lor ëmb ànd ak doomu jàngor bi ganu ganu ànd naa ak moom mais bu ñu defee suñuy pexe doom ji mun na mucc ma maanaam du dund ak doomu jàngoro bi beneen njëriñ bu euh, am solo bi mooy mhm. moom suy jël garab yi mën na dem ba amaana dootul wàllati nit. d'accord parce que charge li ñuy wax charge virale. Mhm. doomu jàngoro bi ci euh, yaramam di néew néew ba nga xam ne ni amaana mën na bañ a wàll. mais lu ñu ñaax jigéen ñi. Mhm. mooy toujours ñu def ay rapport protégés. waaw dans le cadre de leur union. bu mhm. fekkee ne parce que gis nañu ñi nga xam ne dañuy am seen jikko duñ ko am. mais beneen difficulté bi ñu jàngonte aussi mooy. Euh, stigmatisation li ñuy wax naan ak euh, discrimination yi nga xam ne mooy bedd gi ñu leen di beddi rek exactement bedd gi ñu leen di beddi rek ci souffrir te loolu aussi war nañu ñaax mm-hmm. population bi def ay effort wallaahi wallaahi ci difficulté yi sax laa bëggoon ñëw waaye wax nga ci benn muy euh, beddi gi ñu leen di beddi mais yéen ci seen combat mm-hmm. est-ce que yéen ngi ci am ay difficulté pour gën a yaatal seen seen li di liggéen di dox am nañ si ay jéego yu mag yi ñu si def mais quand am na ay difficultés yu ñu souligné bu njëkk bi mooy góor ñi mhm. war nañu dugal seen loxo si paj mi mhm. des na mhm. parce que lu ñu gis mooy Euh, euh, wasin ëmb ak wasin dafa nekk. Mhm. et que bëggoon nañu aussi. Mhm. Euh, góor yi mhm. di accompagner. ah c'est parce que ëmb ñaar a koy joxe. voilà góor ak jigéen la voilà ci consultation prénatale. jigéen xëyul rek Pape Cheikh waaw man man na dama amoon benn laaj rek juste ah. par précision benn bi may njëkk bi may njëkk laaj moom mooy est-ce que yéen a ngi liggéey ci la réinsertion ñi nga xamante ne dañu am doomu jàngoro bi di Sida waaw. ñu ngi liggéey ak ñoom puisque euh, on euh, classiquement dañuy wax c'est une lutte multisectorielle hmm. secteur yëpp am nañu seen wàll et dans le cadre du du partenariat public privé donc ñi nga xam ne ni dañu am doomu jàngoro bi loolu avant lañ ko doon gis mhm. doomu jàngoro bi daf leen doon jàpp ba nga xam ne ni amaana ñu doon liggéey ci nga xam ne dañuy yëkkati ay lu diis suñu amati kàttan boobu mais ak antirétroviraux yi médicaments yi léegi euh, presque daanaka waaw dépassé nañu loolu mhm. léegi ñun aussi parce que yàlla a la confidentialité aussi Absolument. parce que dans le cadre de l'exercice médical mhm. mënuñu am doomu jàngoro bi patron wala ñeneen ñi xam Mm-hmm. donc dinañ def suñu kéemtalaay kàttan mm-hmm. pour nu ñuy oyofalee liggéey. d'accord dafa am fu ñu leen war a fu ñu leen di fekk am na ay bërëb yu précis wala adresse euh, yoo xamante ni ku fa dem fekk leen fa wala je sais pas am na ay bërëb yu ñu leen mën a euh, ñëw quand même pour mm-hmm. waxtaan ak yéen. Euh, ci dans le cadre du VIH. léegi fépp foo dem. d'accord parce que avant. Mm -hmm. en 2005 avant 2005. Mhm. Fann rek lañ doon am garab yi. d'accord au niveau des services des maladies infectieuses ak centre de traitement ambulatoire. d'accord léegi depuis mhm. ku nekk Fongolembi. Mhm. wala nga nekk Saraya. boo fa demee. faj ba maa nga fa nañ la dépister ñu la jox anti euh, traitement anti. d'accord d'accord alors euh, ci yan programme ngeen jëm période yii nii. Euh, fi mu ne nii tembe tembe uh-huh. ñetti région yi des ñi nga xam ne ni amaguñu seen microplan uh-huh. maanaam Diourbel uh-huh. Louga ak euh, ak Kaffrine Kaffrine def nañ ko yaa yaa moins de deux semaines donc ñoom la ñuy def seen microplan mais beneen jéego bu mag bi challenge yi mooy ñu euh, lu ñuy wax évaluation d'impact ñu xool fan la ñuy toll taux de transmission bi boo mhm. Sénégal mhm. parce que c'est bien beau de faire des process mhm. mais dañu am benn enquête bu mag bu ñuy def sous peu ñu xool vraiment fan la ñu toll ci programme bi ñaata xale ñi nga xam ne ne seen yaay wàllal na leen doomu jàngoro wax naa sànq si samay ndorteelu kàddu deux pour cent la buñ ci toll ak beneen aussi beneen euh, pro bu mag bi nga xam ne ni moom la ñu war a def mooy lu ñuy wax euh, Euh, la règle des 90 pour cent bu ONUSIDA a lancé mhm. mooy ñu def suñu kéem talaay kàttan mhm. pour ñëpp 90 pour cent des sénégalais xam seen test mhm. xam seen c'est euh, important seen seen c'est important yëkkatil micro bi comme ça ñu dégg loolu ndax loolu am na solo xam seen sérologie 90 pour cent ñu xam ko et que ñi positive ñi aussi 90 pour cent yi ñu mettre leen sous ARV et que beneen 90 pour cent bi aussi mooy ñu téye leen ci structure sanitaire yi ba ñi nga xam ne ni nañ jël seen garab ni mu waree mm-hmm. et que suivi bi aussi voilà on va finir docteur Ndeye Fatou Ngom euh, euh, ndax euh, li nga ñëw lancé tey comme message am na solo suñu xarit yi seetaan lan nga leen di xelal lu jëm ci combat bi ngeen nekk nii Euh, lan laa leen di xelal mooy di leen di ñaar surtout sama mbokki sage-femme yi ak sama mbokki médecin yi. Mhm. ñu continuer surtout dans le am na ñi nga xam ne dañu nekk dans des coins reculés. Mhm, mhm. e que ñu ngi def euh, seen kéemtalaay kàttan pour le bien de la population ñu continuer seen effort. yu ñuy def beneen euh, message bi mooy aussi ni ma ko waxee donc je le dirai jamais assez góor yi aussi war nañu dugal seen loxo. ci pàcc mi mu ngi noonu même bu dul VIH. sax dans le cadre de la santé de la mère et de mhm. l'enfant mhm. c'est important que góor ñi accompagner mhm. euh, jigéen ñi ak njaboot yi parce que yéen ñaar a ko seq mu ngi noonu de façon ba ëmb juddu ci ba doom di ci ñëw et tout ça donc il faut góor ñi di jàppale di jàppale di jàppale jigéen ñi c'est vrai ah di di di gunge seen i jabar ci mm. gynéco bi uh-huh, uh-huh. Euh, di dem ànd ak seen i jabar ci rendez-vous yi euh, assister accouchement ah peut-être que yooyu dañu koy gis ci tubaab bi mais di ko def itam itam dafay gën a dooleel dooleel jigéen bi quoi voilà jigéen dañ koy dooleel dañ koy doole ah, loolu moom ah. dëgg la waaw di dëggal di la jëndal yu neex voilà <laughs> di ko neexal loolu moom dëgg la ak beneen euh, kii bi mooy uh-huh. euh, euh, niveau communautaire bi aussi mooy tout ce qui est bàjjenu gox yi tout ce qui est relais aussi ñoom aussi uh-huh. ñu ngi bay seen waar uh-huh. mais bàjjenu gox yi kay ay jàmbaar voilà ay lañu ñu gën a accompagner population bi pour ñu fréquenter structure sanitaire dañuy dalal xel ñoom duma duma duma terminer sans remercier suñu partenaire au développement yi ñi nga xam ne nii ñoo ñuy aider. Uh-huh. ñuy def suñu plan yi ci région yi uh-huh. ci campagne yi. Uh-huh, ak aussi di jàppale bu baax. Euh, médecin chef de région et médecin chef de district yi. dans le cadre de leur différents voilà et puis ñun tamit bëgg nañu lii di dem ci télé yi ak ci rajo yi di xamal nit ñi ni euh, yéen a ngi def euh, xeex bu am solo jërëjëf docteur Ndeye Fatou Ngom kontaan nañu merci bonne journée